daleen na jàmm seen émission sans filtre euh, di ay ndaw ñi fii ci réew mi FM lay am euh, mercredi bu joti 15 heures jàpp 16 euh, heures ñu tàmm di fi dalal ay ndaw ngir mën a waxtaane rek li nga xam ne moo leen soxal Mor Fall lay ànd ak tey ci émission bi mooy def rubrique actualité Mor Fall ma nuyu la bàyyi la nga boo bokk nga nuyoog mbokku déglukat yi balaa ñuy jox kàddu gi suñu invité waaw Sylvie maa ngi lay nuyu di nuyu euh, suñu invité euh, Bamba fay di nuyu euh, ñi nga xamante ñoom ñuy seetaan saa su nekk si Rewmi FM donc di ñu suivre aussi suñu plateforme digitale lu ci mel ne rewmi point com nga xamante ni moom mooy www point rewmi point com donc di leen baalu ak di baal ñëpp ak ci bis bi nga xamante ne si lañ jógee muy bis bi di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm def ko ci Sénégal gi yëpp def ko ci àdduna si yëpp donc di xaani li nga xamante lañ fa waxtaane tey ak suñu invité di jour mm-hmm. Euh, Bamba Faye la ñu dalal fii daa bokk ci mouvement bokk gëm-gëm bu Padois euh, Bamba fay ñu ngi am mbégte contenté dalal la fii suñu plateau sans filtre ñu bàyyi la nga nuyoo ci mbokk auditeurs yi. waaw salaamaaleykum euh, soxna Sylvie maa ngi lay nuyu donc di la remercier donc par rapport à l'invitation donc di nuyu aussi sëñ Fall. Euh, di profiter aussi de l'occasion nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy donc les membres du mouvement Bokk Gëm Gëm mhm. donc jël nuyoo bi di ko teg ci loxo yi présidente muy Yaay Fatou yi donc mu jàttale ma ko ñëpp ñi nga xam ne donc ñu ngi ci mouvement Bokk Gëm Gëm ñi nekk suñuy rakk nekk suñuy mag suñuy bàjjan ak suñuy yaay mhm. di profiter aussi par la même occasion aussi di saluer aussi toute la jeunesse de la commune de Patte d'Oie mm -hmm. donc di saluer aussi tous les étudiants donc euh, je rappelle que donc je suis donc euh, di ñaan aussi yàlla ci tabaski bi nga xam ne ci la ñu jógee donc lépp loo xam ne mbébét nañ ko ci lu mu nekk loo xam ne lu baax la yàlla may ñu ko donc dimbale ñu ba Covid bi nga xam ne wax dëgg fa yàlla jaaxal nañu ak rëkk-rëkk yi nga xam ne am na ci dëkk bi instant yi nii mu nekk loo xam ne wax dëgg fa yàlla luy dañ mhm. jërëjëf Mor Fall ñëwal ci rubrique actualité balaa ñuy dugg ci. waaw voilà comme ni ñu koy defee saa su nekk rek dañuy ñëw ci euh, li nga xamante ni mooy rubrique actualité ñu accentué ko tey si ñaari actualité phare euh, benn bi day dem ci li nga xamante ni moom mooy wàllu euh, coronavirus bi ak vaccin yi nga xamante ni jamono ji ñi ngi ko daal di song mu lu jëm ci wàllu jeunes yi waaye tamit wax ci li nga xamante ni mooy wàllu conseil constitutionnel bi nga xamante ni dafa manqué woon ay juge yu fa nekk ba kii Macky Sall daal dina tabb ay nit yu fa nekk mu mel ne am na coow bu ci xaw am waaye dañuy njëkkee li nga xamante ni moom mooy wàllu coronavirus bi Euh, bi nga xamante ne jamono ji euh, ndaw yi nga xamante ne ñoom ñu doon faatu lu bare bare bare ñëpp ñu ngi daw utali li nga xamante ni mooy vaccin yooyu ba ñu waxoon ne sax demoon na ba vaccin dafa xaw manqué euh, ba kii di Abdoulaye Diouf Sarr di ministre de la santé daal jot lu toll ci 500 000 doses yoo xamante ne war nañ ko mën tasaat mhm. mais li nga xamante ne moom ci gën am importance muy actualité bi nga xam ne génn muy nga xamante ni moom mooy ay camp de vaccination ci biir Dakar mhm. euh, donc pour mën a yombal li nga xamante ni mooy vaccination yi parce que hôpitaux yi dafa xaw a fees lieux yi nga xamante ni fa a fees euh, ni mooy stade euh, Léopold Sédar Senghor ak fi nga xamante ni mooy monument de la Renaissance donc mu nekk ay lieux yoo xamante ni nit ñi mën nañ fa mën a dem ba mën a daal amal li nga xamante ni moom mooy seen vaccination parce que jamono ji feebar bi commencé na lëmbee biir réew mi donc mu nekk loo xamante ni kii di sous préfet bu Dakar Plateau bu daal doon superviser li nga xamante ni moom mooy installation wu yooyu site yi nga xamante ni moom mooy place de la nation ñu gën koo xam ci place de l'obélisque fi nga xamante ni mooy am na fa installé fi nga xamante ni mooy monument de la renaissance donc mu nekk yoo xamante ne jamono ji fi nga xamante ni dañuy yombal li nga xamante ni moom mooy vaccination bi parce que mhm. début euh, li nga xamante ni mooy deuxième vague bi nit ñi euh, gëmuñu woon li nga xamante ni mooy vaccin wala boog ndaw ñi fulaaluñ ko woon mag ñi mag ñi ñoon gën di dem nag di mhm. vacciné wu mhm. mais comme ne mi ngi rey jeunes yi si lu bëree bare bëri bëri alors que variant bi euh, daanaka sax dem nañ ci bay wax wàllu efficacité si ñi nga xamante ni ñoo jël première dose bi donc nit ñi fi nekk nii waxtuñu sax waxu takk masque mais ñi ngi daw wutee li nga xamante ni mooy vaccin parce que jàpp nañ ne moo nekk meilleure solution donc buñ demee nag ba fi mu nekk ni am nañ ñenn ñoo xamante ni ñu ngi sëwe ba léegi dut ci euh, bopp bopp africain wala boog bopp euh, population mondial naan leen vaccin bi baaxul bii ak bii de andi parce que suba ñuy benn information naan dafa am koo xamante ne dafa jël deuxième dose ci vaccin bi nga xamante ni moom mooy Johnson Johnson am ay problème ba ni ko mujj amputé les deux jambes mm-hmm. donc mu nekk ay euh, information yoo xamante ne bu ñu koy faral joxe nit ñi dañuy dem vers la vers les ci yenn euh, site d'information yi nga xamante ni ñooy joxe yooyu euh, am na si yoo xamante ni ils sont habilités ci li nga xamante ni mooy wàllu euh, coronavirus bi ak bi moo ci mën dara que ça soit Johnson Johnson bi nga xamante ni lañ jàpp ne benn dose nga ci am que ça soit li nga xamante ni mooy Covax bi que li nga xam ne mooy Pfizer bi wala bu mm-hmm. chinois wala bu nekkee sax bi ñu defaree Colobane xalaat lu mu mënti nekk mhm. vaccin moom moo ci nekk lu ñu mën a sauver nañ dem vers li nga xamante ne mooy vaccin yooyu mhm. te aussi nañ jël disposition yi yi war dëgg dëgg pour ñu mën a euh, canaliser li nga xam nit ñi parce bu ñu nee ubbi nañu euh, fu mel ne euh, place de l'Obélisque fi ngeen ubbi nañ fu mel ne place de la nit ñi dañuy daw foofu te nit ki bala ngaa daw fenn da ngay xaar bañ jox la rendez-vous parce que ba léegi inscription day am. Mhm. jox la ne jour temps ñëwal vacciné wu. Mhm. Euh, xam naa kaay aussi pour mën a euh, désengorger duut li nga xamante ni moom mooy hôpitaux yi la mais juste xam naa aussi fekkee

les la moitié wala bokk les dix millions de vaccinés peut-être que foofu dinañ mën a euh, jege li nga xamante ni moom mooy tax euh, feebar bi du lawati yeen law bi mais fi nekk mm-hmm. nii law na benn law boo xamante ni euh, daanaka jël nañ ay directive ne masque yi dañuy dañuy dañ koy dañ koy joxe lu ah. obligatoire ci biir oto yi mm-hmm. Mm-hmm. mais teewul nit ñi ba léegi parce que nga dugg oto nit ñi du nangoo tax masque parce que mesures yi wala dëgg-dëgg jël ñu ko police instant bi dañoo war a jël ñeneen ñoo xamante ne peut-être que ay ay auxiliaire lañ wala ñi nga xamante ni ay agent yoo xamante ne ñu ngi ci biir euh, police wala bi gendarmerie wala bokk euh, ASP yi ñu jël leen ñu dugg ci oto yi ñu koy ñu koy contrôler képp ku ku jëndul masque ñu wàcce la bu ñu waree fayloo ñu fayloo la bu ñu waree au moins sax ñu ñu ñu téye la sax au commissariat ba benn journée fekkoon da ngaa woon defi leen ñu téye la benn journée. Mm. ba euh, gis na yow mi journée boobu ñu ne mais 3000 francs bi mm. am na ñeneen ñoo xamante ne masque bi lañ koy def nii rek bu ñu gisee policier bi laal laal bu ñu paree dindiwaat nañ ko alors que yow na ndax yaa yaa am nga feebar bi mm-hmm. leerul ndax ki nga dendal am na feebar bi te koo ci wax installé nañ yooyu yooyu yooyu euh, euh, campagne de waxuma camp de vaccination. Mhm. na nit ñi dem voté ji ba nit ñi dem euh, au parce que sama xel mi nekk ci wàllu <laughs> kii mais ba léegi. sa ça ça va dans le sens. vote la dem dem vacciné wu ji. <laughs> Euh, ci li nga xam ne mooy camp yooyu même ba si district sanitaire sax dispensaire sax yóbbu nañ commencé fa yóbbu ay ay quelques doses de vaccin pour nit ñi vacciné wu voilà loolu moo nekk li nga xamante ne waaw ma ci yokk rek euh, bëri na fake news ay hmm. vidéo yu circulé di naan boo jëlee vaccin yi dans deux ans trois ans da ngay dee Euh, dara amu ci fake news dafa bëri trop toujours euh, dafa bëri trop sax euh, ci vaccin vaccin yi dafa bëri bëri na coow ñi nga mm-hmm. xam ne ñoom ay anti vaccin lañ mm-hmm. kenn xamul daal fu ñu jëlee yenn information yi na sénégalais moytu du lépp loo gis ci réseaux sociaux yi rek dëgg la mm-hmm. comme ni ko Mor Fall waxee OMS rek moo ñu mun a wax loo xam ne war na mën a dugg suñu nopp yi puisqu'on parle du Covid dañuy ñëw rek yow étudiant nga yaay secrétaire général amical des élèves étudiants de la commune de Patte d'Oie du secrétaire général national de l'organisation des élèves sénégalaises mhm. euh, di coordonnateur de l'alliance des jeunes unis pour le renouveau euh, tey décidé nañ dakkal cours yi foofu la ca université 31 juillet ba le 4 octobre mhm. euh, lu ci sa xalaat ak yan conséquence la leen mën a jural d'accord bon merci beaucoup Sylvia donc d'abord di rebondir par rapport ak monsieur moom la fi andi concernant euh, le Covid 19. Mm-hmm. parce que lenn dafa am euh, Covid 19 dafa nekk loo xam ne tey jii nekkul quelque chose qui est particulier au Sénégal. Mm-hmm. nekkul quelque chose qui toog def mu def pratiquement ans dans le monde. et ba mu defee deux ans dans le monde premièrement ba mu ñëwee boo xoolee ñun ñëpp dañoo tiitoon Sénégal yu bëri dañoo tiitoon donc parce que lan moo taxoon xamuñu woon feebar bi. te loolu tax te xamuñoon feebar bi tax na ñu bëri ci début ba da leen faagaagal. bu hmm. waaye mais avec le temps dañoo dem au fur ba xam feebar bi xam ne nii moom mooy tax nit ki mën ko am contamination lii moom mooy tax nit ki mën cee fagaru lii moom mooy tax nit ki mën cee mucc. Hmm. donc toutes ces informations là ñun depuis le début on l'avait pas. Hmm. donc je vois que duñ demee tey ba en un certain moment donné ñi am toutes ces informations là ñëw ba di assister à parce que Sylvie vous le savez monsieur Fall xam na ko télé yeeg muy rajo yeeg muy mi FM ak muy keneen ak keneen ku nekk tey jii nii jël na sa sa sa sa stylo bind jël na sa làmmiñ wax donc def na li nga xam ne tey jii jàpp na ne bu ko defee tey jii nag ñii nga xam ne ñoom ñooy wax ne Covid bi am naag amul donc dinañ leen sensibiliser ba xam ne lii c'est quelque chose d'existant mhm. parce que tey jii nii bu nekkoon ne Covid bi nekkul am tey jii ça serait limité dans une couche mhm. une couche vulnérable ñi nga xam ne xëy na amuñ wala ñi nga xam ne ñoom ñoo pauvre mhm. mais la Covid gis nañ ne tey jii nii jàpp nañ ñoo xam ne ay kàngam nañ ci réew mi gis ñoo xam ne jàpp nañ ñoo xam ne ay am nañu ko donc moo des mooy il l'acte et passer à l'acte mooy lan mm-hmm. il faut responsable dans la vie mm-hmm. yow bu nekkee ne bëgg nga xëy na covid bi dal la kenn bëggul covid bi dal la mais mm-hmm. yow c'est comme comme monsieur Fall lu mu ko waxee sànq kenn xamul naanam kan moo yor covid bi man damay jël sama précaution depuis covid ba mu ñëwee ba léegi su may génn sama masque ak sama gel vous voyez donc à chaque fois loolu laa koy def et donc dans les lieux à grande affluence dafa am loo xam ne tey jii ça dépend vraiment donc euh, de la psychologie de moom moo ko moom moo ko war a mun a bañal boppam. Mm-hmm. bañal ko askanam parce que mm-hmm. tey nous étant jeunes pour qu'on se la vérité mun nañ ne xëy na Covid bi bu ñu dalee tamit du ñu sonal mais tamit on vit pas seul. Mm-hmm. on peut pas se extraire donc de la société. nous faisons partie de la société am nañ ay relations yoo xam ne moom lañ am ak suñuy parents moom lañ am ak yenn mère moom lañ am ak et cetera et te tey jii nii wóor na leen donc mënoo gis tey jii koo xam ne ab ab am na adulte la amul donc yenn feebar yi amul benn comorbidité soit am na diabète soit am na asthme et cetera et forcément da koy sonal te depuis le début boo xoolee ba première vague bi ñëwee je pense très bien que Sénégal ñun bu nekkoon ne respecté nañ les mesures tey duñ ci agsi fii hmm. te Covid bi dafa nekk loo xam ne nii jeex tey jii nii secteur yëpp laal na leen. fépp la laal fépp la laal donc donc ça concerne plus seulement donc la santé mais c' la santé c' est l' éducation c' économie c' la politique et cetera et donc c' est un ensemble de systèmes actuellement ki xam ne qui est donc à cause à cause du Covid 19. Mhm. donc loolu noonu bu demee ba am je pense que vraiment man en tant qu'intellectuel en tant qu'étudiant man jàpp ma ñi nga xam ne donc dañuy wax ne Covid amul donc wax dëgg faa nu ñun bokkuñ ci ñi nga xam ne ñi nga xam ne dañuy wax ne Covid amul. Mhm. parce que gis nañ donc des personnes qui qui sont gis nañ des personnes qui sont contaminées mais comme nu monsieur Fall wax il faut passer à l'acte. Mhm. jëndal masque loo nit ki kenn foog naa ne kenn gënul bëgg sa bopp sa bopp donc jëndal masque moom mooy tax nga aaru mais yow boo bëggul aaru tamit nga aar ñi nga xam ne ñoom nga àndal mm. au niveau des voitures qu'on se dise la vérité donc tataay dañuy fees et pourtant y a des de l'ordre qui sont là ASP y a y a des ASP donc je pense très bien que li nga xam ne wala ñu war a gën a revoir mooy c'est la gestion donc du Covid 19 mm. nan la places parce que man irresponsabilité laa ko mën a jàppee hmm. étant citoyen yi nga war a protéger sa dëkk parce que tamit Sénégal perte na lu bëri ci Covid bi hmm. perte na lu bëri bëri bëri bëri bëri donc on énormément perdu donc ci Covid te am na des choses yoo xam ne ce sont des choses scientifiques ce sont des choses scientifiques quand on vous dit lii virus la donc ça mute et virus bi muté moom moo gën a bon tey mun na am melokaan bi suba mu am melokaan bële mhm. et donc quand on parle des différents variants les différents variants il y nga xam ne moom moo ci gën a moom moo ci gën a moom moo gën a gaaw contamination donc c'est le cas de delta bi nga xam mhm. mhm. naa am position bii nii suba donc mu amaat donc beneen beneen beneen lii donc ça devient normal donc comme des lieux de forte affluence comme université

dinañ mun a def donc continuer donc leur cours voilà donc def leur cours à distance voilà comme ça les conséquences seront parce que nous sommes obligés à faire ça mënuñu toog donc pendant plus de deux mois trois mois sans bañ def cours déjà rek on a beaucoup perdu mhm. avec l'hivernage donc ak covid bi nga xam ne mi ngi ñëw di tey jii nii xamuñ fi nga xam ne fa lañu jëmee je pense très bien que warul nekk loo xam ne obstacle la parce que dans la plupart jii ñu ngi continuer seeni cours en ñu ngi def donc correctement seen cours sans aucun sans aucun souci te ñun ñi nga xam ne tey jii ñun ñoo ñun laa jàppee donc donc la frange la frange de la la frange de la population la plus mm-hmm. importante mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng parce que su mën a ñuy jàng tamit nekk mën a ñuy jàng nasaraan rek laay wax mm-hmm. ñi jàng alxuraan ak ñi jàng xam-xam ak waa jàng bu ñëpp ci lañ bokk mm-hmm. ñun war na am benn position phare boo xam ne moom la ñu war a am donc pour la lutte contre la covid parce que man du ma au au moment où dugg na biir Sénégal au moment où dugg na sama biir gox rek donc je me porte donc instant yi nii volontaire vraiment pour éradiquer ce fléau pour mën a permettre la population mu regagner vraiment la vie d'avant Mhm. voilà euh, nga joxe benn message rek à l'endroit de la jeunesse parce que gis nañ tey euh, tendance bi daa mel dafa wëlbatiku. Mhm. ba muy door a dugg Sénégal. Mhm. mag ñi ñoo daan dee. tey xale yi ñooy ñoo siy génn àdduna. benn message boo leen di lancer. laata alors donc ça c'est un message que je lancer à l'endroit de toute la jeunesse. et boo xoolee mun naa ne c'est c'est normal parce que début ba muy doog a ñëw. dañoo waxoon ni jeunes yi mun na leen dal mais mënu leen a léegi nag. langage boobu noonu nga xam ne moom lañ tenir ci nopp jeunes yi dem na mhm. en certain dañ ne donc kon garaaw même su dalee mhm. du mën a yóbbu fenn mhm. or que ça dépend pas de ça ça dépend seulement de tes cours de bu nekkee ne vraiment vous avez un taux d'anticorps très faible bu la jàppee quel soit nga nekk jeune nga nekk sportif dalay faagaagal donc de telle sorte que donc jeunesse bi tey damaa wóor ni bu nekkoon na jël nañ seeni dispositif donc 80 pour cent jeunes yi ñoom ñooy déplacé wu ñun ñooy mhm. dem ci terrain de football yi ñun ñooy dem ci mariage yi ñun ñooy dem ci hôpitaux yi ñun ñooy def leneen ñooy dem ci bërëbu liggéeykaay et cetera et cetera donc forcément ñun bu ñu jëlee suñu disposition jël suñuy responsabilité je pense très bien qu'on peut freiner donc à net donc la propagation donc de covid de mhm. covid 19 mhm. jël seen moto waaye donc takk seen masque donc di wut ay gel te bu ñu jàppee ne fii war nañ fa mën a dem vacciner ñu dem vacciner wu te ñu éviter vraiment donc certaines euh, yenn paroles yoo xam ne vraiment donc ce sont pas des paroles merci beaucoup Mame Fall boo euh, amee loo ci sànni balaa li may tëjee moom mooy euh, ci côté euh, université bi bi ñu wax noonu ñu mhm. waxoon dafa am 17 étudiants yoo xamante dañoo deewoon ci Covid bi mhm. donc a mu nekk loo xamante ne nekk nii donc démentir nañ ko jusqu'à preuve du contraire ñu joxe benn information bu mën a mhm. dëggal ne am na ay étudiants yu dee ci Covid bi leneen li mooy am na ay activités yu bëri yoo xamante ni daan nañ koo daal di euh, dakkal muy euh, li nga xamante ni moom mooy lamb yi woon am ci diggante Balla Gaye Bombardier ci diggante ki nga xamante ni moom mooy euh, Boy Niang ak ki nga xamante ni aussi moom mooy mbëru lansaar woon bëre yooyu yëpp daan nañ koo dakkal aussi concert bi nga xamante ni moom la daj woon am à Dakar aussi daan nañ koo dakkal aussi ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo jotoon jënd billet ñoom ñëpp ñi ngi leen di rembourser jamono ji seen xaalis donc mu nekk ay mesures yoo xamante ni yu am importance ni mooy première information bi ñu andi Euh, ci coronavirus bi. d'accord nañu muñ rek ndax euh, dund loo fekkee. Mm. tey boo nekkee di wut xaalis te amoo santé wala nga wut xaalis am bénéfice des millions pour ensuite. Euh, ko Covid bi jàpp la nga dem bàyyi ko fi amul njëriñ. Mm, amul sens voilà Bamba fay yow mm. yaay bokk nga ci mouvement bokk gëm-gëm bu mm-hmm. Padois. Mm-hmm. nga ñëw ci boobule mouvement lan moo ko tax a jug. d'accord merci beaucoup Sylvie donc mouvement bokk gëm-gëm dafa nekk mouvement boo xam ne mi ngi ci commune de Padois et le mouvement est après avoir constaté que la commune de Padoue vraiment regorge des privilèges immenses mmh. que la population de la commune de Padoue n'arrive pas à bénéficier après mhm. avoir donc euh, constaté que ñun ñi nga xam ne ñun ñoo dëkk ci commune bi donc nekk te soit des jeunes nekk ñi nekk suñuy bàjjen ñi nekk suñuy yaay ñi nekk suñuy tant am na loo xam ne tey jii war nañ ko mën a jongante ci biir ci ci biir commune bi te defuñu ko après avoir constaté que donc la jeunesse donc est regorgée de de de, de privilèges immenses la jeunesse vraiment a donc am na ay initiative yoo xam ne am na ay privilèges yoo xam ne tey jii manque d' encadrement manque d' orientation et manque de guide moom moo tax tey ji mënuñ kaa def après avoir constaté aussi que mhm. Sénégal mënut a développé lu dul ku nekk su ñun da nga commencé béy sa wewu tànk mhm. je pense que ça urge pour nous ça urge donc pour toute personne donc pour tout surtout tout citoyen mhm. donc de se réunir autour donc d'une d'une chose qui est concrète bien faite bien réfléchie pour vraiment venir en aide donc la population de la commune de Patte donc c'est de cela donc qui est né donc le mouvement Bokk Gëm Gëm mu nekk mouvement boo xam ne donc dañ ci ànd ak suñuy yaay ànd ak ci comme ni ma koy waxee suñuy bàjjen ak suñuy mag ak suñuy rakk pour assister donc la population de la commune de Patte pour fi nga xam ne lépp li nga xam ne tey jii jàpp nañ ne tey jii élus ko war na ko mën a def mooy comme maire wala conseil municipal wala et cetera et cetera war na ko moo def pour taxaw ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci biir goo xam donc waa bokk gëm-gëm taxaw ne donc ñun lii nii war nañ cee béy suñu weewu tànk parce que je je je dis souvent que donc face à certaines circonstances historiques je pense qu'il faut dépasser l'attitude vaine du spectateur stérile donc mooy lan tey ji mënuñu toog en un certain moment donné ñi gis ne tey ji commune bi ñu nekk am na jeunesse bi accompagné wu leen ñenn ñi ñu ngi jàng di bàyyi ñenn ñi ñu ngi feebar donc hôpitaux yi waxi noppi ñi nga xam ne moom mooy côté loisir waxi noppi ñi nga xam ne fi nga xam ne mooy sunu lieu de culte yi waxi noppi et cetera mu am beaucoup de mots yoo xam ne tey jii nii ça gangrène la commune de la Patte c'est tout à fait normal que nous en tant que jeunes en tant que jeunes instruits ñu dugg ci lenn ñu dugg ci une formation boo xam ne sa permettra en quelque sorte nous d'acquérir une expérience mais aussi donc d'assister la population de la commune de Patte d'Oie donc au niveau des instances de décision pour vraiment ses privilèges image image yi nga xam ne moom lay recorger vraiment dafay mën a dellu siwaat ci biir population bi mhm. donc c'est un mouvement boo xam ne donc euh, sa présidente donc Yaay Fatou Koulibaly boo xam ne c'est pas dañu on se démarque nous la jeunesse donc comment dirais on se démarque de cette jeunesse là bi nga xam ne donc cette jeunesse là elle ne s'intéresse pas aux affaires de la cité nous on s'intéresse aux affaires parce que tey man un bambara ne pas se permettre de dire que liggéeyul wala commune bi yàqu na sans pour autant que moom mu dem jug def li nga xam ne tey jàpp ne loolu moom moo tax commune bi war a baax vous mm. donc de notre niveau c' une urgence pour nous de notre niveau c' une obligation pour nous pour venir en aide vraiment donc la commune de Patte parce que nous avons constaté c' commune qui regorge vraiment des privilèges immenses mais jusqu'à commune qui tarde à des autres communes mm-hmm. Mm-hmm. voilà euh, bu ma la mun naa ko wax donc euh, récemment donc je vais saluer de passage euh, Ibrahima Kamara qui est le président donc de l'amicale des élèves étudiants de la commune Euh, un ami à moi avec euh, qui j'ai partagé donc beaucoup de choses boo xoolee nous avons énormément d'initiatives nous je prends dem l'exemple des élèves et étudiants énormément d'initiatives ne serait-ce initiative bu mujj bu ñu mujjee def rek nu ñu ko tuddee univers pédagogique c'est un programme qu'on avait en place pour accompagner l'ensemble des élèves qui sont en classe d'examen et c'est un programme boo xam ne ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy yi ak élèves yi ñun ñoo ko bindal suñu bopp xaatimal ko suñu bopp jug dox ci donc ñun en collaboration avec certains professeurs dem di jox ay cours de renforcement frappé pour dire vrai donc c'est ça dépasse les six voire les sept voire les dix fois mais donc sans aucune réponse et ce sont ce sont des initiatives à appuyer des initiatives à encourager parce que c'est du ñun ay étudiants lañ mm-hmm. suñu temps bi ñuy perte dem di ko naanee ataaya wala di ko fubale jëluñu ñu dara mais pourquoi pas bañ kaa consacré si suñu nga xam ne ñooy suñu frères yeeg suñu sœurs pour vraiment mun leen a accompagner pour ñu mën a def paisiblement seen bac seen examen du mouvement Bokk Gëm Gëm Yaay Fatou Coulibaly qui a été toujours au premier rang qui a toujours là donc pour accompagner vraiment ces initiatives donc de jeunesse là donc récemment donc moom dimbal nañ ci bu baax jàppal nañ ci bu baax c'est pas parce que donc je suis mouvement mais avant même may dugg ci mouvement bi la commencé donc def donc ces initiatives là et c'est c'est à l'endroit de de monde bu loolu weesoo ci population dafa am ñoo xam ne euh, tey jii nii on les appelle le plus tôt le plus souvent des couches vulnérables donc c'est un mot qui dérange un peu et quand je parle de couches vulnérables je parle ñi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw je parle ñi nga xam ne dañuy dund ak laakoot sont des handicapés je parle tey ñi nga xam ne tamit donc ils ont donc un revenu vraiment très réduit mais ñooñu noonu tey jii di yeewoo ci biir commune bi gis ne commune am na war na ko na boo xam ne war na ko mën a ci biir ci biir ñooñu noonu xool lan lañ leen mën a accompagner xool nan lañ mën a def tey jii vraiment wax dëgg fa pour mun a pour pour mun leen mettre dans des conditions vraiment de de dans des bonnes conditions de vie parce que boo xoolee tey mairie bi ce n'est rien d'autre compétence transférée donc de donc normalement tey jii lépp loo xam ne tey métti waa commune bi tey jii nii

kii de waroon naa def lii te yow de ton niveau amoo benn sacrifice boo xam ne tey jii def nga ko tey jii pour rectifier donc ce ce tir là pour rectifier vraiment donc ces ces ces mauvaises choses qu'il a fait je pense très bien que yow tu n'auras pas ton mot à dire donc raison pour laquelle jeunesse bi dañoo war a activer war a xam ne tey jii li nga xam ne moom moo war a doxal Sénégal mënul jaaree ci fenn dul ci jeunesse bi te jeunesse bi fu muy commencé mooy fi nga xam ne fa nga dëkk fa nga yeewoo foofu nga dëkk nga jonganti foofu noonu keneen sa morom tamit def pareil ci beneen commune keneen def pareil ci beneen commune département bi donc jug région bi jug donc pour pays bi mën a mën a développer donc échelle la mënuñoo jékki-jékki rek ne Sénégal doxul te directement dañuy waxtaan ak Sénégal donc forcément foog ñu ñëw donc ci entité bi nga xam ne moom moo gën a ndaw muy les communes commencé foofu noonu suñu liggéey bi donc pour a continuer à avoir donc la philosophie donc du mouvement bokk gëm-gëm li ma mooy tey jii mënuñoo tey defar sunu gox tant bokkuñu gëm-gëm mënuñoo jàpp ne tey jii nii kii li muy def baaxul te ñun war nañoo ànd donc avec des principes te bokkuñu gëm-gëm mënuñoo jàpp ne tey jii nii kii nii ab way laago la am na loo xam ne war na ko soxla mënuñoo jàpp ne way laago bii nii soram warul nekk tey taxaw ci bopp koñ bi di saraxu waruñ jàpp ne tey way laago bi warul war a mun faju dem di dugg ci ay kër di ñaanaatu mm-hmm. te bokkuñu gëm-gëm gëm ne loolu mën na am waruñ tey mun a jàpp ne kii nga xam ne tey jii élève la mu nekk un bon élève waruñu mën a jàpp ne tey jii élève bi waruñ ko mën a accompagner tant que bokkuñu gëm-gëm te waruñu mën a jàpp ne tamit commune bi warul a jëm ci kanam tant que bokkuñu gëm-gëm mhm. donc bokku gëm-gëm googu na wax donc ce sont des principes qui ont été réunis donc des ne tey jii ñun dañ koy bokku gëm tenku fi nga jàpp ku nekk jàpp ne donc sa ku nekk jàpp ne donc commune bi sa commune la pour vraiment mun a continuer vraiment à la commune de Patte d'Oie jusqu'à présent vraiment et c'est désolant de le dire c'est une commune qui regorge vraiment des privilèges immenses mais qui tarde jusqu'à présent à exploiter ces privilèges là. am na solo Mor may ma rek balaa ma lay jox kàddu gi <laughs> euh, bëgg ngeen bokk dans les instances de décision. Mhm. Euh, est-ce que kon am ngeen candidat pour la mairie. oui donc euh, li ma wax les instances de décision pour. nga euh, rectifier dara foog nga bokk fi nga xam ne fa nga koy rectifier mhm. parce que le plus souvent on dit tout ce qui se fait pour toi sans toi se fera nécessairement contre toi donc boo bëggee xam tey li nga xam ne moom mooy doxal commune bi foog nga dem nekk ci nga xam ne moom mooy instant donc de décision mhm. nous avons donc une candidate donc la présidente et là je pense que c'est la leadership féminine donc c'est la leadership féminine euh, étant qui a donc sa candidature vraiment donc jigéen mu nekk donc suñu yaay bu brave mu nekk suñu yaay bu am jom wax dëgg faale et donc ces choses là donc ñun donc y une très faible représentativité de femmes et ça mhm. c' pas normal. Ah, jigéen sax exactement te jigéen ñi dañ leen soxla pour gérer tey jii boo de boo xoolee tey boo jëlee histoire commune Patte d'Oie boo xoolee ñu fa jaar ñëpp ay góor lañ. Mhm. tey jii pourquoi pas ne pas donner maintenant donc de montrer vraiment son savoir-faire, de montrer vraiment donc, ses, Donc on est donc le mouvement est là, on est prêt, et nous allons partir en élection et maintenant ce qui reste à définir, donc nous allons partir en élection avec qui et comment, donc je pense dinañ ci dinañ ci ñëw su permettre tamit ma def benn digression bu ndaw concernant donc euh, euh les fichiers donc électoral mhm. donc xam ne donc jur na instant yi ay coow euh, yoo xam ne xaw na takku trop parce que boo xoolee on a dit que révision ou liste électorale yi donc c'est pour quarante cinq jours voilà donc et quand tu vois quarante cinq jours donc Sénégal am nañu une perception un peu désorientée je peux dire ou bien déroutée donc des primo votants parce que primo votant nekkul ne seulement ki nga xam ne dix huit ans de ku musul voté moom mooy primo votant mhm. mun naa am vingt cinq ans trente ans musuma voilà te awma exactement donc voilà exactement c'est estimé à plus de trois millions a te xam nañ ñun ñëpp Sénégal ban nga naan nga kay wut kayit sax nu métier nga nar a dem donc police donc yóbbu donc déposer pour am carte d'identité après nar a ñëwaat donc ñëw ci commission électorale yi pour am donc bindu ci liste yi je pense très bien que c'est très très très très très minime et tey jii nii il faut donner vraiment la population tey jii la chance vraiment d'aller choisir ñi nga xam ne ñii lañ jàpp ne ñi mën nañoo doxal tey réew mi hmm. mais en quarante cinq jours je suis sûr que ndaw na trop tey je suis sûr et certain que tey jii du ma nekk te tamit en plus de cela ndaw yu bëri tey jii nii du ma ne jaralu leen ko mais tey jii du leen jaral ñu jógee fii paas dem ba mm-hmm. donc à dix kilomètres ou bien quinze kilomètres pour dem wuti carte d'identité pour euh, bu nekkee ne da jàpp sa temps toog teg sa baraade di wax di naan kii defu fi dara wala da nga jàpp ci télé ku génn nga wax ko saa ku génn nga ŋàññi ko je pense très que tu n'as pas ton mot à sa carte électeur pour mën a fal pour mën a folli donc quel que sacrifice boo xam ne war dem def ko dem bindu ci liste électorale yi pour vote bu ñëwee ñi dem voter seen candidature comme ça au moins ñoom dinañ mën a wax ni ah kii de maa ko fal wala kii de man maa ko folli mais ku falul folliwul wax dëgg fa la donc tey jii amul lan loo xam ne tey jii war nga kaa mën a wax ba nit ñi mun naa déglu donc jeunesse bi tamit côté boobu nag maa leen ciy nañ jàpp ne donc les instances de décision donc doivent on doit avoir une forte

les moyens qu'il faut. voilà ñu mettre les moyens qu'il faut voilà yombal ko yombal ko ñëpp quoi. amoo mhm. voilà donc euh, dégg naa li mu wax yëpp ci euh, wàllu seen liggéey yeeg li nga xamante ni wax na ko ci wàllu élection mais laataa foofu damay ñëw euh, ci côté li nga xamante ni wax na ko ci ñoom ci seen mouvement bi parce dafa ne mouvement bokk.

jafe-jafe bu mag seen biir xaw ndax yooyu mhm. yéen koy bàyyi xel wala mhm. bàyyi wala ko xel seen biir mhm. parce euh, tëb tëb rek ne ne mouvement alors que euh, am na problème yoo xamante ne moo jiitu yooyu war a dox parce que mouvement ngeen wax ne Patte ngeen nekk te ku ne Patte d'Oie ngi jege lu mel ne parcelle ak fi nga xamante ne mooy mu am jafe-jafe yu am solo yu metti yu fa am lu ci mel ni insécurité mhm. lan la ngeen def yéen ah. <laughs> dégguma ñu ne ba may dégg coobale dégg ñu ne ñu ne mouvement xamal lan def na si dara mhm. bo eh. mooy mhm. dañuy nag ba ay instance politique wala instance politique jege si ñu muy jóg ku nekk dañ ne mouvement sàngam dañuy def li day def li li ñu li ñaan li ñaan nit buy wala mag mag buy buy naanu tàng suukar saa tax fi mu nekk nii loolu laa gis si jeunes parce que problème bi am bi ngeen léegi instance yu bëri gis ñu si jeunes yi parce que jeunes yi mhm. ce qui les intéresse moom mooy xaas daar daar bi mu mhm. la intéressé mhm. nga jóg ne dañuy def aujourd'hui dañuy def benn genre euh, séminaire xaw ma lan manifestation bi nga am ci benn cinquante mille benn cent cinquante mille ku ne am benn vingt mille te nga daal sa poste après xaar leen du ngeen ci li nga xamante ni moom moo moom mooy nekk lu lu rentable loo xamante man du ma du ma yàq sama sama sama temps ci loo xamante ne du ci du ma si jeunes yi ba loolu la wax mhm. man moom laay wax mhm. yow mii fi toog moom ngi wax moom lay wax donc bu ñu nee mouvement moo tax mouvement yi bëri bu ñu man moom may may waxuma ko léegi Sylvie mii ci terrain bi eh. naan day joxe masque am na lu muy xaasu parce du du baa tax mais am na lu muy xaasu d'accord man li ma bëgg a xam ba xam yéen mhm. seen mouvement bi ngeen taxawal c'est juste pour jege li nga xamante ni moom mooy moom mooy yenn euh, responsable yi nga xamante ni ñoom ñoom ñoom ñoo ëmb biir Padois. ngir mën hmm. a am dara si ginnaaw parce que. xam hmm. nit bi def dara am na lu mu ciy xaar. que engagement boo xamante ne juste c'est comme ni hmm. ko waxee. da nga koy def nii rek. am na leneen loo xamante ni moom ngay def ji loo xamante ni bokkul ak. Euh, sa activité boobu. parfaitement wala aussi. en ka bi ngeen war a dem ci élection yi ngeen wax ak seen candidat boobu ndax du andi féewaloo loolu maa xaar beneen bi mooy ci wàllu élection yi ngeen wax ne affaire mm-hmm. bindu yi mm-hmm. parce que je pense que jeunes yi ngeen wax yéen seen commune bu ngeen bëggee seen commune mm-hmm. li fa war a voté yëpp muy primo votant yeeg ay yuma ko bëggee lijjanti en last time lañ ko lijjanti parce que euh, bu ngeen defee benn seen genre caravane yooyu ngeen def ne képp koo xamante ni foo xamante ni au moins dinañ mën a relever ñi amul ñëpp ngeen mën leen a lijjanti. Mhm. xam ndax am ngeen idée boobu. Mhm. parce que récemment gis naa ko fii ay étudiants yoo xamante ni ils étaient mhm. partis à Touba ci maire bi gis. Euh, archive yu mel ay ah, këyit yu xottee sànni ko fii. ils se sont constitués archivistes yi yoo xamante ébaan lañ jógee. dem jël fichier yooyu fexe ba takkalawaat ko yu xottee ko ñu collé ko boole lépp ba ba ba def benn banque boo xamante lépp dafa

waxee mm-hmm. donc mouvement la et il y a différentes colorations politiques mm-hmm. mais ces différentes colorations politiques là seront neutralisées par quoi seront neutralisées par l'aspect du principe mm-hmm. parce que boo ñëwee bokk ci biir mouvement bi on suppose que nous avons les mêmes principes de fonctionnement boo ñëwee bokk ci mouvement bi on suppose que nous avons donc la même vision boo ñëwee bokk ci mouvement bi on suppose que ñun ñi nga xam ne bokk nañ ci bokk nañ benn gëm-gëm te suñu gëm-gëm mooy jongante li nga xam ne moom mooy commune Patte d'Oie bi vous voyez alors donc en partant de ce principe là normalement et je amul tax donc côté wax yooyu noonu je pense que ça n'a jamais existé au sein du mouvement bokk gëm-gëm et ça n'a jamais exister ah, au sein du mouvement euh, ça va jamais exister donc au sein du mouvement donc côté boobu noonu jàppal ne du am benn problème boo xam ne donc dinañ ko ci noter parce que mm-hmm. pourquoi nous avons une gestion très inclusive et ça c'est important avoir une gestion inclusive est très importante maanaam lépp looy def képp ki nga xam ne moom moo la jiite wala képp koo xam ne moom moo la jiital wala ñi nga xam ne ñoom nga ko seexal nga dem waxtaan ceeg ñoom et cette gestion inclusive là va permettre quel soit alpha donc de de à certains problèmes li nga xam ne moom la constater ci yenn camps yi duñ ko mus a constater donc au sein du au sein du mouvement donc c'est c'est un mouvement qui est très ne donc na comme électorale yi mouvement yi am xaalis yi donc je vous invite peut vraiment donc à faire peut-être sur ma man Bamba man je suis pas comme ça donc je arrivé à l'université en 2016 et directement donc dama commencé donc nekk dans le mouvement syndical pourquoi pour servir les étudiants pour servir les pairs mhm. donc ci noonu laa nekkee coordonnateur de l'Alliance des jeunes pour le renouveau salut de passage donc ces étudiants jóge fa donc ñu personnes, des professionnels, élèves, donc des étudiants, et qui est un peu partout représenté au Sénégal, mais aussi représenté en France, représenté au Maroc, représenté au Canada, représenté aux États-Unis, Italie, etc. Mmh. donc nous, depuis le début, on s'est intéressé vraiment à la gestion de la cité. Comme ni ma la ko waxee, mënuñu toog fee comme ni nga wax ne naan dañuy dañuy kaas dañuy wax ne dañuy def di te fi nga xam ne jàpp nañ ne fa lañ war a fa lañ war a di di dafa bëgg bokk ci instance de décision yi te amul xam-xam jàngul. nous on s'intéresse beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup à l'apprentissage beaucoup à l'apprentissage donc je suis étudiant en licence en bio en bioinformatique et mais en dehors de cela aussi moi donc je m'intéresse à tout ce qui est la sécurité informatique cybersécurité et de cela donc j'ai trois certifications par rapport à la cybersécurité et comme vous l'avez dit donc depuis le début donné un lien ñu dugg ci biir lien bi donc faak na jàpp ne boo lien Facebook la donc def seen ID def seen mot de passe ma récupérer ko wala dire que prochainement donc il ne faut pas donc faire ceci il ne faut pas donc un ensemble de techniques boo xam ne ñun tey ji dañ ciy simisé pour vraiment dire à la jeunesse que tey ji nii li nga xam ne moom moo war a mën a jëmal dëkk bi kanam ci jeunesse bi la mën a jaar mais jeunesse bi foog mu nekk une Padois dafa ñàkk sécurité parcelle dafa ñàkk sécurité fenn ak fenn dafa ñàkk sécurité. Mm. mais jàppal ne tey jii sécurité nit ki mu ngi commencé ci nit ki. Mm. nit bu bëggee am sécurité mu ngi commencé wax ci boppam. Mm. xam fi nga war a dem xam heure yi nga war a dem xam ñi ngay collaboral et cetera et cetera léegi nag bu loolu weesoo mais tamit. nu nu nu sommes pas là aussi pour nous faire la sécurité. parce que n'oubliez pas on a dit que l'État si l'État est trop il va nous ça, de, ça deviendra donc une oppression mm. mais aussi si l'état est très faible ça deviendra ce qu'on appelle donc l'écrasement de la population donc état boobu bi nga xam ne moom moo fi l'état qui est censé de gérer la sécurité de la population pas mm. les personnes ah, et nul n'a le de se faire la justice voilà non parce que yow mi nga ni yaa ngi dëkk Padoa nga jàkkaarloo benn kër xam ne kii defkat la ngay ragal naan ma ko boolee mun naa moom problème moom yooyu aussi non comprendre ma waxee loolu moom ma jàppee ne kër gi nga xam ne moom laa jàkkaarloo tey ji am na ñaawte bu fa nekk mais des fois dem à la police pour le signaler que cette personne là am na lu muy def c'est un truc c'est mais y un ensemble de procédures à suivre mm. wala des sax duñ la faale wala des fois dañ la ax ah, nangam donc mais à un certain moment donné oui il faut le faire bon à un certain moment donné donc plus hautes institutions vraiment donc pour remettre je pas dire donc les Sénégalais sur les rails mm-hmm. mais pour leen wax na donc lii moom mooy yoon bu baax bi te képp koo xam ne wàcc na ko donc daan yi moom moom moom moo la ci fekk mm-hmm. et sur ce à la mairie on le souhaite mm-hmm. jàpp naa ne donc dinañ ci mën a donc liggéey vraiment donc liggéey bu mucc ayib côté boobu noonu parce de santé. ñett yooyu noonu mu wax dëgg faa la sont des choses primordiales vraiment pour nga mun a parler d'épanouissement de population. am na solo merci Bamba Faye mm. euh, di fàttali rek euh, les auditeurs qui nous ont pris a ngi déglu seen émission sans filtre tey ñu dalal Bamba fay di étudiant jiite na kuréel yu bëri euh, bokk na itam ci mouvement bokk gëm-gëm nekk fale ca Padois je suppose que war ngeen am benn programme bien défini. Oui, on a un programme bien défini, très bien défini même. Bon, mhm. <laughs> mais comme que nous. voilà, exactement. Donc, comme nous l'a demandé, bon, comme que nous, nous sommes pas des partisans, donc, comme je l'ai dit, de la et que, mhm. donc, comme nous avons dit, donc, nous avons fait le mouvement. Donc, le mouvement, comme nous avons fait, avant même, moi, programme, nous avons fait beaucoup surtout sociales et pédagogiques. e ñaari yooyu noonu moom mooy ñaari volets yoo xam ne bis boo ko maîtriser rek wax dëgg fa la mun nga jàpp ne sa population bi wax dëgg laa dinañ vivre en tout en tout temps là Donc on a fait vraiment des activités, des initiatives, donc vraiment donc dans ce domaine-là, des accompagnements concernant les élèves, des accompagnements concernant les étudiants suñu donc suñu tantaay ak suñu ñëpp maanaam koo xam ne jàpp nañ ne fii bu ñu ci dugalee suñu loxo vraiment wala bu ñu ci dugalee suñu kàddu mu nekk loo xam ne lu lu lu lu luy sotti lay doon def nañu ko alors parlant du programme euh, donc je vais être vraiment un peu bref parce que boo xoolee comme ni ma ko waxee boo jëlee donc ci cadre côté côté jeunesse bi

leen tey ji xam ne tey kii nga xam ne mu ngi tey di raax wala nekk tey ji manoeuvre bu yàggee mu ko doon mano maçon plein nan lay def fan lay aw ak lan ak lan ak jan privilège ñoom ñoo am te en plus de cela encouragé tey ji lépp loo xam ne dañ ko war a liggéey ci biir commune bi ñi nga xam ne am nañ expérience am nañ expertise nekk ci biir commune bi ñu njëkkee fa d'abord

primordial mais tamit munoo wax faj te waxoo jàng parce que ñiy faj ci jàng lañ jógee hmm. donc voilà donc moo tax jàng ba dañ ci dañ c'est un point focus donc dans programme nga doog a ñëw ci paj mi tey y a des hôpitaux au niveau de la commune mais boo xoolee tey ji à part donc Nabi Choucair bi nga xam ne moom moo nekk hôpital bi gën a rëy et puis y' a pas tey ji hôpital boo xam ne vraiment nit ku feebar tey ji mun na accessible vraiment ki nga xam ne amul dara wala ki nga xam ne vraiment il a des revenus réduits donc dans ce cas tamit au niveau donc de la santé nous avons vraiment un programme bien déterminé côté santé mais aussi boo xoolee tamit suñu côté yi nga xam ne moom mooy euh, côté culture ak côté sport parce que c' très important culture ak sport nekkul kafoore non non en un certain moment donné dafay dafay nekk vecteur économique fi nekk vecteur de développement parce que tey jii bu nekkee ne da organiser ay nawetaan nga jógee organiser ay square de France nga jógee ci loolu organiser ay Jeunes en herbe bi dina jur benn benn koom-koom boo xam ne tey jii wax dëgg faa la am na noo koy entretenir rek loolu nga xam ne dañ ko jàppoon foo Kafagré mun na nekk vraiment donc un vecteur donc de développement mm-hmm. donc bu jógee ci loolu noonu tey jii nga ñëw donc au niveau donc transparence loolu wax naa leen c'est très important ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo nar a fal ñoom ñoo nar a fal maire ñoom ñoo nar a fal donc des conseils municipaux lépp loo xam ne jàpp nga ne lii nii idée bu baax la mu bañ a yem ci yow donc nga wàcc ci biir population bi waxtaan kook ñoom diisoo kook ñoom recueillir seen avis de telle sorte que lépp loo def rek boo ñëwee présenté la ko dañ naan ah gongo parce que donc day nekk loo xam ne sont des choses qui ont été discutées préalablement et voilà donc nous prenons vraiment une gestion inclusive donc dans ce dans ce dans ce côté là te ci gestion inclusive boobu dafa dafa dafa important parce que tey jii ni dëkk ci commune bi bëri na ñoo xam ne xamuñ sax luy xew ci biir mairie bi mm-hmm. xamuñu tey jii ni budget bi nuy voté budget bi xamuñ na tax tey jii am na budget pour ça am na budget pour ça les impôts et cetera et cetera maanaam xamuñ ci dara te loolu noonu yëpp tey ji population bi avant muy ñëw di la ko laaj mais yow mi nga xam ne moom moo la dënk lenge da wàcc ci moom ne ko ah nii ak nii ak nii laa fas yéene doxale mm. comme ça moom ah moom tamit boo ko defoon tamit xëy dina gën vous voyez mm. notre programme je pense que ça dans le temps parce que à chaque fois donc on est en contact permanent avec la population de la commune de Patte d'Oie de telle sorte dañuy mën a recueillir a chaque fois donc ko présenté di nga ci mën a di ci mën a gis sa bopp mm. en dehors de cela tamit boo xoolee eh, Patte d'Oie dafa manqué ay infrastructure dafa manqué ay lieux yoo xam ne tey jii jeunesse yi war na faa mën dem dajaloo soit def ay réunion soit waxtaan soit def donc def déjeuner en herbe soit def donc des des des forums et amul amul te loolu noonu dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy ñoŋantal dëkk te aussi promouvoir aussi les espaces verts comme les espaces verts comme ni ma koy waxee foo xam ne donc parce que instant yi pas donc Dakar tey jii di wax dëgg faal avec la pollution c'est c'est extrême te loolu tamit je je le dis ici donc pollution boobu ça fait aussi ça fait partie donc des causes de certaines maladies là il faut le, il faut le savoir ça fait partie hmm. donc des causes de certaines maladies donc dañ andiwaat encore ces espaces verts là andiwaat encore tey jii l'inclusion de la jeunesse ou bien la participation de la jeunesse au niveau des instances de décision comme ça ñi mën a gis jeunesse bi ne xam ne ah ndaw bi kat mu ngi dox ci li nga xam ne moom mooy jëmale dëkkam kanam pas autant ñi bàyyi ko ay maires hmm. hmm. <clears throat> si na route yëpp aller vers Padois tëli yëpp suuf si mais quand même où sont nos élus da da ngay foog ne nekkul tëli parce que suuf si da kaa muur de telle sorte que sax mënoo ciy gis dara mm-hmm. dem nañ ba def fa tëli mais vraiment tamit je pense très bien que avoir une bonne gestion pour entretenir les infrastructures moom loolu ça fait partie donc du suivi te boo defee tey baax te te amul suivi amul suite donc amul njëriñ où sont nos élus locaux et là voilà dessus donc c'est voilà donc je pense que répondre na li ñu soxla ni benn ke man koy benn moom mooy jaaxal ba léegi mais xam naa fi nekk nii loolu foog ñu ñëw foofu uh-huh. gëstu ko moom mooy. Uh-huh. Euh, tënk ko rek deux daal waaw ah, mooy loolu daal xam naa daal euh, bu ngeen bu ngeen seen seen gars ànd ci yéen ah. Ah, liggéey bu métti la te xam naa fi nekk waaw ngeen soxla yu bëree bëri ah. wàllu conseil ak na la ñuy doxalee seen vacances euh, aussi ci euh, troisième vague bi ñu toll nii mhm. xam naa aussi dina leen xaar parce yaa ngi yor say say gel ak yu ni mel xam naa aussi da ngeen ci am action yoo xam ne di def ci biir oto yi comme que suñ chauffeur yi doxuñ mhm. malheureusement temps bi xoj nañu mënuñu mhm. wéyal waxtaan bi ñu bàyyi la nga tàggatoo joxe sa dernier mot d' accord merci beaucoup euh, Sylvain maa ngi lay remercier di remercier aussi Fall donc euh, di leen remercier auditeurs ak auditrices su waa Rewmi FM wax dëgg Fall donc c' était un plaisir pour moi de se retrouver ici et pour parler des choses vraiment qui concernent la jeunesse pour parler des choses vraiment qui concernent la commune et je termine vraiment par remercier donc l' ensemble des membres du mouvement Bokk Gëm Gëm remercier les étudiants donc remercier aussi donc le la présidente euh,

ci eh, kàllaama nasaraan ak kàllaama ko ci barma donc di jaajëfal yow tamit may bokkal plateau bi di nuyu suñu eh, chroniqueur bi doon nekk te jamono ji nekk ci mbirum xarak yooyu muy Modou Fall yóbbal donc di ko jaajëfal bu baax di ko nuyu <laughs> voilà donc la jaajëfal leen jox di daje donc mercredi bii di ñëw ci yeneen eh, sujet bu baax Bamba Faye da nga am loo bëgg a non non non merci beaucoup merci <laughs> bokk gëm-gëm jiite kuréel yu bëri ca université ñu koy sant di ko ko gërëm di gërëm euh, ñu ñu doon euh, déglu jamono ji Adama ci technique ba euh, mercredi bii di ñëw nag ñu dalal beneen invité beneen thème heure même fréquence